non compte man journaliste yi. ñu ngi leen di euh, nuyu waxtaan bi door na déjà donc euh, di leen dalal jàmm fii ci euh, plateau mi journée bi ci Walf TV tey ñu ngi am mbégte di dalal Thierno Lo Thierno Lo moo jiite parti bi di Alliance pour la paix et le développement di APD jiite tamit coalition Àjjana moom mooy PCA bu SEN TER SA Thierno Lo ñu ngi lay nuyu. yaa maa lay nuyu di la fay. di la remercier bu baax si li nga wuy si sunu euh, invitation. Mm-hmm. man tam ma leen di remercier ci li ngeen ma invité pour que ma joxe suma xalaat ci actualité bi. waaw actualité bi nag bi si jiitu mooy euh, couvre-feu bi nga xam ni 12 euh, jours yi ba mu jeexee réhab ki restauré waat nañu ko démb ci gouverneur yu ndakaaru ak Thiès au-delà de du débat sur la légalité est-ce que am nañu ci droit amuñu ci droit loolu même juristes yi sax d'accord ñu si ñoom ñu ngi coow rek chaque jour. mais euh, sur la pertinence parce que nit ñi dañu ne du jours yi ñu def après gisaatuñu benn tan ci euh, feebar bi feebar bi di au contraire sax da doon gën a yokk par jour nit ñi di ñàkk seen bakkan di gën a bëri est-ce que yaakaar nga ni il était pertinent ñu delloowaat couvre-feu bi. ah Pierre maa lay jëkk li ma lay jëkk mooy euh, li nga xam wax ne nañu élaguer débat bii nga xam ne nit ñaa ngi koy def ak affaire yooyu ci juriste yi di ko def je ne pense pas sax mu nekk ay problème de juriste quoi parce que juriste yi buñ doon wax dëgg xam nañu bu baax li teg si wax. mais toujours est-il que lii ñu war a retenir mooy Sénégal dafa nekk benn réew boo xam ne bii réew bu ndóol la réew la boo xam ne bi li nga xam ne bi la moom moo dal États-Unis dal Espagne daan yëpp bu dalee Sénégal di ennemi boo xam ne bi kenn xamul fu mu jógee kenn xamul nu mu mel xamuñu ban la fii def nañu defoon ba ñu classé woon ci ay rang ci réew yi nga xam ne bi ñoo gën a résister nga xam président la république dafa woo sëriñ sii woo tarixa yi woo diine yi woo citoyens yi woo homme politique yi seen waaye Sénégal yi yëpp àndandoo cohésion boobu ñu defoon moo ñu mayoon ñu occupé woon rang bi ñu occupé leneen li ci ko mooy comme xam nañ ne lii xeex pandémie bi ba pandémie masee am ba léegi du ay milliards moo ko xeex li koy dindi mooy mesure barrière mooy ngay sol masque di raxasu di def distanciation sociale di def lii docteurs yi ak professeurs yi wax loolu jarul ay milliards ñun ñëpp mën nañ koo def kon nag bu état bi dee jël ay mesures pour que loolu nga xam ne bi nekk na à notre disposition ca nga xam ne moom dong mooy faj moom dong mooy garab gi nga xam ne bi moom lañ turéegun kon buy jël ay mesures pour que ñu respecte loolu kooku def naa ne ñun ñoom ñëpp war nañ ci manaam maanaam un minimum de consensus te suñuy problème politique yi ñu am ñu réglé ko feneen te lii lu concerne intérêt général la lu concerné koom-koomu réew la lu concerné ay bakkan la kon nañ ci àndandoo gérer ko ni ni mu gën a rafetee pour que li ñu ci bëgg yàlla suñ borom defal ñu. waaw ah, mais sauf que jël mesure dangay ngay évaluer càmbar mesure bi weesu jours yi ñu génn est-ce am na tam ci feebar bi. loolu lan mooy xam nga lan mooy càmbar bu mag bi. mooy feebar bi mi ngi fi nekk kenn xamul fam la jóge kenn xamul kañ lay dem te mi ngi commencé di rey ay nit di jóg te xam nañ ne li nga xam ne bi la boo ko defee moo lu ci musal. mooy nga fexe ba nit ñi duñu am ay contact nga fexe ba nit ñi duñ tase di wàllante nga dikk ngay jël ay mesures pour que nit ñi bañ a àgg ci côté boobu loolu la état bi di jël état bi jëlul benn mesure bu dul fexe ba nit ñi duñu tase bay wàllante kon nag loolu nit ñi dañ ko war a reconnaître ça n'a rien voir avec autre chose cadre boobu la nekk te foofu rek lañ ma ni président mu jël fi dogal te dogal bi mu ciy jël li ci nit ñi war a comprendre mooy président bi du décider corps médical ñoo ko naan lii la ñu décider da nga ñuy confiner da ngay def lii nan ko def ci tel nombre de jours nañ ko def nii bu ko defee ñun suñu liggéey ñu xam na ko lañ ko joxe. président président président moo koy jël déglu yaa gën a xam li ma lay yaa gën a xam li may wax ça veut dire que non deful confinement du président mooy tëb di ko décider couvre-feu du président mooy tëb di ko décider corps médical bi ñoo ko naan boo ñu mënoon a defal confirmant ci tel gox tel gox tel gox de telle heure à telle heure président jël jël légalité parce que moom la constitution bi may moom la yoon may mu génne décret yi génne loi yi à travers l' assemblée nationale jox préfet yi ñu def arrêté yi pour que mënul ñu mun ko def donc garant de la légalité la mais décision yi président de bi République dafa mën a xëy fii benn suba rek nan dama leen di confiner ca waxatu ca corps médical ca corps médical ba ña fa nekk ay boroomi kër ay sénégalais la ñu jàng comme ñun yoo xam ne dañoo bëgg réew mi kon seeni décision nañ koy respecté gis nga problème Sénégal. bu ko jëlee nag. xoolal du un corps médical naka lay dugalee président ci erreur. du ngeen bàyyi wax yi ñoom aspect sanitaire bi a l' aspect économique la ne xoolal bala nga naan naam ne fa. économie mënta dox ca dund amut économie mënta dox nit moo koy def su nit ki warut ci nit ki nekku fi économie mënta dox économie day servir nit économie nit moo koy créer. nit kooku kay créé li ñuy jëkk a sàmm ba aar ko ba wéral ko pour que mu mën a lu mu dundee gis nga bu leen di bàyyi danaf rek gis le déni gis nga déni compétence ak déni xam-xam bi am ci Sénégal dafa dangereux parce que nit ki am xam-xamam nañ ko reconnaître xam-xam Sénégal nañ tàmm bu benn idée amee pertinence nañ ko reprendre kooku mooy statut intellectuel mooy statut nit mais di tëb lu tëb nga xëpp ci suuf lu tëb nga wax ca ca amoo ca xam-xam jàngoo ko jàng xam-xam la di di di tari ci jàngoo kooku moom mooy. naka la noonu bi bett naa la yow gis nga ay 17 heures 18 heures nit ñi dañuy tàncaloo di. am xam nga loolu dèjà. xam nga loolu dèjà euh, ñàkk a xam oubien di def exprès. di saboté moo tax ngeen di wax wax ju mel noonu. parce que damay laajte rek. yaa gën a xam li ngay li ngay laajte yaa gën a xam nga ni. bu baax li ma xam mooy li ma constaté. nga ni bu baax ne boo génnee à partir de 16h 17h 18h a. xoolal xam nga man temps yi def naa benn post ci Facebook ma ni malgré suñu pont yi ak suñu tunnel yi foo tourné ci Dakar ay bouchon la. kooku mën na nekk l'objet d'un autre débat hmm. pour que ñu xool suñu planification yi ñuy def ak la ñuy def est-ce que li ñuy def fii suñ toll nii est-ce que nekkul loo xam dañ ko waroon def pour deux mille vingt cinq deux mille trente alors que les réponses de deux mille quinze là moom la ñuy continuer ñun di ko jéem a gérer ça veut dire que boo boo gisee loolu ma xam ne c'est les plans directeurs c'est la vision projection yi nga xam ne waroon nañ koo def pour que Dakar du toll ci livre yi muy vivre ak du toll ci lii muy def ça c'est un autre débat lii kon lii am ci mbedd yi maa ngi ciy sëg sama bët parce que citoyen la di ko vivre comme tout le monde am na ñu ñoo xam ne fii nii bu couvre-feu bi pare dañuy ñibbi même boo defoon couvre-feu bi tey tey tey tey tey nga defoon ko vingt heures nit ñi dañu leen gisaat ñu nekkaat ci mbedd mi pour dem ñibbi parce que ñoom ñëpp ñu ngi jóge ci banlieue di ñibbi ca problème mobilité bi. ba léegi yaa a d'énormes efforts yoo xam ne président bi mu ngi ko ciy def par les tunnels par les ponts par BRT yi muy def ak affaire yëpp mais def na ak terre bi yooyu yëpp mais terre bi terre bi terre bi bu paree ci ngay gis euh, li muy def rentable j'ai pas tenu ici un débat sur le terre parce que maa yow wax nañ ci waxaat ci ba tey te bind naa ci te li ma ci waxoon dara du ci changé te yaa ma doon am na am na utilité mais je veux te dire que ni rek problème de mobilité bi am kooku ñu ngi koy vivre sans couvre-feu bi li am solo mooy guddi da ngeen a yaakaar nii ñëpp dañuy nelaw ci nit ñi am na ñoo xam ne duñ nelaw guddi am ñoo xam ne guddi rek li ñuy génn ci li nu gën a ragal ci guddi la ëpp parce que guddi nit ñi nekk ñu ci mbedd yi di dox nii nit ñi dañuy toog ci ay endroit yi ñuy tase di fa daje di fa naan café di fa fecc di fa baal di fa am seen côtoyé ak affaire yooyu yëpp ba cinq heures yooyu matin cinq heures du matin yooyu ñuy ñëpp boo dëkkee réew moo xam ne ñu bari ay chômeur lañu bu ñu xasee toog guddi ci benn kaa dañuy toog di waxtaan di taafantoo ba fajar ñu dem tëddi nelaw parce que la journée ils n'ont pas de boulot ils ñooñu nag ñooy yor contact yi nga xam ne bi la moom la ñuy bañ parce que yow ñëw naa fii tey di dafa yow émission maa yow duñu su ñu génnee damay dem ñibbi nga jaar fii keneen ki jaar fële mais bu guddee dañuy toog benn place la ñuy toog ça veut dire que le virus là circule la nuit la rek mais place yooyu ñu ngi koy tëj ñu sacrifier ñeneen ñi mu ngi tëj mais c'est pas que des dancing qu'il y a ici xam dañuy bëloot guddi di dem yu guddi di toog guddi di waxtaan waxtaani football ak waxtaani lu nekk toog ci benn kër toog ci benn kër bu ñu ko deful seddaay def ko ci biir kër bu ñu ko deful gànd def ko ci biir kër pour nga jógee ci kër gi dem ci kër gi ko dañuy toog def couvre-feu boo dee ku sa biir kër garam place yi dootu am dootuñu daje fenn ndaje mi la ñuy bañ ndaje bu bu ku nekk toogee sa kër ndaje du am loolu itam mesure de sécurité la boo xam bi nañ ko nangu te bàyyi politique bi ñuy dugal ci gestion Covid bi gestion Covid bi nañ ci génn politique. moo ko politisé. mooy ñi ñuy contre li gouvernement bi arrêté rek. Euh, yéen ba président wootee opposition bi dañoo dem ànd ak moom et tout ça donc bàyyi ko mu déroulé. mais loolu dañu après après bare du opposition kese y a de simples citoyens là ñuy toog fi dox ay saison un saison deux nekk ci biir mbedd mi di daw di dàqanteeg policiers yi di ko foyee am ay ponkal magum jëm toog ci ay ay terrasse di leen tàccu inconscience notoire yi ñu noonu gis nga ñooñu dañ leen waroon jàpp sax dugal leen ci kaso bi képp ku vidéo génn nga taxaw ci état di tàcc ay xale yu nekk si dañ laa war a jël si ku jiite xale yi dañ laa war a jël si ku toog di pousser à la désobéissance civile dañ laa war a jàpp june lii c'est un désordre et désordre boobu ça tire à l'anarchie yooyu dañ ko war a bañ ci Sénégal il faut une discipline citoyenneté ak patriotisme moom manqué ci biir réew mi ca tant que defaruñ ko mbir mi du jëm kanam alors euh, euh, pourquoi Dakar ak Thiès rek loolu la question sénégalais yëpp di yu ëpp en tout cas di posé wu question ndaxte feebar bi law na ci dëkk bi yëpp am ay régions yeeg nga xam ne tamit heure boo gisee bulletin bi nga gis ni seen cas communautaire mi ngi gën a yokk non loolu da koy loolu euh, waa kii docteurs yi ak professeurs yi parce que ñoom ñooy décider loolu man du ma docteur professeur de toute façon li wax rek man d' naa ci lu hmm. si a efficace pour yow yan levier ñu war a mën a boo xam ne bii ba pandémie masee am ci àddina ba léegi Pierre Edouard pandémie yi du lii la jëkke pandémie même forme yi leen yor virus la buy mutéwu boo demee ba yaakaar ne jeex na mu génn la ci beneen façon bi ci covid bii lañ ko jànge covid bii du pandémie bi jëkk ci àddina àddina daa yàgg am ay covid bu ñu fi dikkee dafa am benn période bu ñu fiy toog bu jeexee ñu dem ca lañ mas a gis ñu di ko faj yépp mooy leen mêmes mesures là gis nga peste ak grippe espagnole ak yi nga mës a dégg yëpp yëpp yëpp ñu ma fee jaar lii lañ leen wax distanciation raxasi loxo jëli masque mooy tonte loolu moom ça ne coûte pas des milliards c'est à notre porté fu ko defee boole ko discipline mu dem mais les chinois c'est pas les plus grands experts du Sénégal man chinois yi nekk fee dàq ñoo jàng sama professeur yi nekk fii Dakar mais lan la lan mooy seen i différence mooy un dañoo am ay plateaux médicaux yoo xam ne sama docteur yi amuñu ko ba pare dañoo am ay citoyens qui sont disciplinés discipline mooy la première force de la Chine discipline boobu c'est partout dans le travail partout dans le comportements partout dans le respect de l'intérêt général ñun on est un peuple indiscipliné et l'indiscipline n'est pas un facteur de développement c'est une boo xam ne bi tant que mi ngi nekk ci yow doo dem fenn doo def dara taxaw lu dox indiscipline mënta defar dara yàq rek la man dañoo indiscipliné tant que nag réglé wuñu problème yooyu suñu docteur yi duñu jël benn mesure bu dem développement duñ ko mun a am donc il faudrait que ñu réarmer les consciences defaraat nit ñi ba ñu xam ne intérêt général bii pour ñu def ko ku si nekk war nga changer sa comportement ci biir réew mi politique bi nag bu ñu ko buddee bu ko def mën nañu ko defee feneen nga xam ne bi suñu citoyens yi danoo raw suñu politiciens yi parce que suñu citoyens bu ñu demee ñoom ba mën a def ñaari alternance au Sénégal ñu toog ba sëriñ sax bu leen waxatee wotee leen fii dañuy bañ xam ngeen ni peuple boobu nekk na peuple éveillé boo xam ne bi ànd ak moom ak dem ak moom boo leen dimbalee dina mën a nopp mais bu fekkee ne yow defoo ko ñemewoo leen ñemewoo jël ay décision yi nga xam ne bi la wóor nañu yii ñooy populaire demee ak di toog politiciens yi di toog di wax di n'importe quoi gis nga loolu ci li gën a yàq réewum Sénégal ci la bokk il faudrait que ñu bàyyi façon yooyu ñuy def di wax pour intérêt askan wi pour que ñu di ko def suñu waree te bàyyi critique bi ak itam bàyyi ay wax yoo xam ne teguñu ko fenn ba pare ba waxee ñu naan ay démocratie la démocratie c'est pas le désordre waaw justement loolu laa bëggoon wax sax Chine bi nga joxe exemple foofu bu amee ku jàdd jàdd yoon xëy dañ lay teg si yoon ak lu mu mënta jaar lool moo amul ci lu réew bi loolu lay préconiser nag hmm. réew mi waroo fee toog di def lu la neex nga wax waroo toog ci réew mi di def la la neex waroo toog ci réew mi di am comportement bu nekk boo bi day laar la liberté et le droit de l'autre soo ko defee dañ laa war a teg ci yoon réew moo gis mu am gars yi di wax lu leen neex di def lu leen neex toujours réew mooma day tas day dem wér. mais na fekk njiit ñi commencé. waaw di war di jubal. xam nga li ngeen ne kenn du wax tamit loolu amul fenn. xam nga xam nga li ngeen di wax da ngeen di dédouaner la responsabilité des gens en disant toujours ki ñu ki ñu ki ñu fal serviteur la. ñun ñoo ko jël teg ko foofu jox ko suñu kàddu parce que suñu carte lañ ko jox. waaw ah, dafa nag koo xamal nañ lañ sëq ak moom. bu doxal lu mu war a doxee bu folli jotee ñu folli ko mais bu ñu waraatee jël keneen nañ jël keneen koo xam ne kii daf ñoo proposer programme bu gën li kii doon def parce que puusal ma teg fi keneen sans pour autant que jox ma programme kooku itam ci suñu ay erreur la bokk donc la responsabilité mi ngi revenir toujours ci citoyen bi citoyen bi moo war a xam lan mooy intérêt général ak lan la war a def ak lu mu wërta def ak kan la war a tànn ak ku mu wërta tànn mais bu ngeen bëggee dédouaner nit ñi bàyyi leen ak seen comportement yi ñu leen di jox xaalis ñu koy nangu ñu naan dama ñàkk dem kon war dama nangu lii ngeen bàyyi leen bañ leen a mettre demande leur responsabilité kon lu xew ñun la parce que vous dédouanez facilement les populations lii ils n'ont que les dirigeants qu'ils méritent ce que yow war nga xam ne sax loolu taxawul nañ bàyyi lu ñu dégg bitim réew wax ko ñun ñu commencé comme ay répondeur automatique mel ni ay saku di ko répété rek mais peuple boo xam ne dafa am benn dirigeant boo xam ne daf koy dóor di ko tëj di ko brimer est-ce que peuple boobu moom moo mérité dirigeant nga xam dafa ñu imposer ko la force imposer ko des conditions très dures la force publique di ko teg ci koom est-ce que peuple boobu moo ko moo moo moo mérité na boobu daal mérité wu ko mérité wu ko li mu mën kay mooy boo ko bàyyee mu réagir. mooy wóor na ni kii di ko dóor di ko noot bu àggatee élection ñu jël kartam pour jox ko ko donc le peuple est un peuple qui est conscient léegi nag les leaders l'élite ci boppam ñoom ñoo fi nekk def accaparement wu pouvoir bi di tromper les di jouer ci yenn comportement yi d'une certaine partie du peuple de parce que am na nit ñoo xam ñu gore ba léegi parce que Olof Ndiaye dafa wax ne biir du fen loolu vertu la boo xam ne sa biir kër nga ko war a amee parce que ñàkk du gore soo nekkee sa biir kër xiif nga baxal ay xeer naan ko boo génnee ci bitti kooku waxul du ko xam kooku bi ñu ko doon wax mooy lu metti metti metti boo génnee na nga toog ci sa ngor na nga toog ci say principe loolu lañ war a delluwaat ci askan wi mais par mais bañ leen a wax xiif du tee gore mooy li ma la wax xiif du tee xiif du tee gore mooy li ma la wax xoolal biir du fen xam nga biir boo ko tuddee lu ci war a dugg la boo ko joxul lekk day metti da mais wërta tax olof dafa xam ne wërta tax nga génn di gore toogal ci biir booy baxal ndox sax mbaa ngay def jaxase loo jaxase lekk ko boo génnee dox ci biti ak sa ngor ak sa diine boo ko kenn xam donc bu ñu puus nit ñi ci goree di bu leen puus ci jaay seen ngor il faut ñu wan leen ne lu metti metti metti toog leen seen ay valeur am na yu ngeen dul nangu seen carte d'électeur war leen koo jaay war a nangu ñu leen di torloo ay t di leen tàccloo di leen jaayloo seen parrainage te itam bu leen kenn jox xaalis pour que ngeen jël benn acte boo xam ne bii dana dem ba sotteeku ci kaw réew mi soppati ko kaw askan wi yëpp. te ça c'est l'éducation loolu loolu éducation la ak réarmement gis nga xaalis bii ngeen gars yi di war di joxe am na sénégalais yoo xam ne boo leen joxee xaalis duñ ko jël am na sénégalais yoo xam ne itam duñ jël xaalis di ko joxe ji li askan wi moom duñ ko jël di ko joxe si ces exemple là la ñu war a jël pousse leen pour que ñu réarmer le peuple sénégalais réarmer nos jeunes réarmer nos dames pour que ñuy def les meilleurs choix ak di bañ peuple bu dul bañ du peuple buy dem goree bi ci boppam mooy ñàkk xam lan nga doon ak ñàkk muñ ñàkk a def souffrance gëm sa bopp pour dem c'est des valeurs te loolu yëpp nag il faut ñu koy waxtaanee il faut que ñu respecter tey suñu biir parce que problème Sénégal aussi am na benn problème c'est-à-dire que il faut qu'on se respecte il faut que suñu interlocuteur ñu di ko respecter il faut que ñu respecter xam-xam il faut que idée généreuse bu génnee mën ko jël pour mën ko utiliser pour dem bu ñu xeet kenn parce que toutes les compétences sénégalaises dañ leen war a jël pour que ñu participer au développement de notre économie te deux choses war nañ ko régler mooy patriotisme ak gestion de l'intérêt général voilà deux choses qui nous manquent et tant que réglé wuñ ko di jeg ay gestion d'intérêt particulier ñu benn degré de patriotisme boo xam ne moo ñu mën di boole ñëpp pour que ñu def face le Sénégal va continuer à avoir les problèmes politiques kuñ fi fal dañu la Assane Ndeye ko liggéey. Ah, nga ni man kuñ fi fal ñu la Assane Ndeye ko liggéey. waaw di wax Assane Ndeye ko liggéey mentalité boobu moo fa. ñu waaw ñu fal la nga daal di daw armeel ya seeti sa papa seeti sa kii gars yi ñëw sa kër commencé di tàcc boobu dañu xamul la notion de responsabilité qui incombe à la mission ak itam nga ñàkk a xam ne yow serviteur du peuple nga que ce soit un président de la république ak muy ministre ay serviteurs de la république lañu mooy ay nit ñoo leen jël ne leen dem leen ngeen doxal ñu. dem nañ ngeen liggéeyal ñu ñun ñoo ngi toog di leen jugé ba xam suñu nekkin dana changé est-ce que dinañ am bien-être suñ ko amut am na dogal boo xam ne buñ ci àggee danañ la sempi tegaat fi keneen foofu nag lañ am problème bala ngaa sempi nit xoolal ka nga fay samp lan la la proposé lan la indi lu gën nga soog ko jël pour teg ko fa ca kooku itam problème ci Sénégal. ñu bañ di folli rek. Euh, waaw folli rek ay dégage mm-hmm. dégage rek. Mm-hmm. waaw boo boo rek l'essentiel ma teg fi Pierre Edouard ba ma teg fi Thierno Lo waxu la lu lu muy nu muy defee sa njàng ni muy defee sa agriculture naka lay fexe ba yow nga am emploi mais nag Thierno dégagé da ngay teg per Edouard ba pare ba liggéey ngay jooy jox bu ma yëgoon yooyu nag lañu war a bàyyi. dañoo a gën a exigeant. il faut ñu exigeant di def ay débat de programme man soo dikkee ne opposant nga boo ma seetsee ak nga dem ci plateau yi dama naan eh yow école bi doxul naka nga ko war a faje yow emploi yi nga xam ne amul Sénégal naka nga koy defaree yow yaa ngi wax naan ay mal gouvernance dafa am boo dikkee naka ngay réformer lu système ba kenn dootu jël li ñëpp bokk waaw boo waxee yooyu nag ba ma dégg ko ma xam ne man menuisier bii kat déglu naa yow ñuy sa programme bi wax nga ma man sama menuisier bii ma nekk soo yéegee naka laay sama liggéey di doxe sàmm bi xam ko nappkat bi mareyeur bi ku si nekk déglu gis boppam ci li ngay wax bu boobaa ñu mën a jël seen carte pour jox la ko mais Sénégal il faut nga nekk ay lobby il faut nga mën a saaga il faut nga mën a xasse il faut nga am sëriñ bu lay jàppale il faut nga am benn lobby boo bokk pour que ñu jox la ay position de pouvoir loolu nag tant que mi ngi fii am joxuñu exemple suñu jeunesse bi ca itam ay affaire goré di li ñuy indi ca c'est ça kii mooy détruire aussi dañ jàng sax dañ naan finalement dañ naan jàngul dañ naan jàngul kii man boo pare naa dem rek dem dëbal dëbal wut ci lobby yi nekk ak politicien ba mën a dugg fii mën a saaga mën a xasse damay am poste yooyu ci boppam ci yàq réew mi ci la bopp te tant que quand bu may wax réer moment c'est pour que ñu xeex loolu te loolu bu ñu bëggee xeex il faut une conscience citoyenne nit ñi nangoo respectante parce que nit ki boo ko respecté doo ko mën a sax déglu il faut nga respecté ko déglu ko pour que li mu wax lan nga ci gis lu ñu mën a jëfe ñu jël ko pour jéem a jëf loolu mooy problème mu réew mi fii on passe à côté de l'essentiel dégg nga kii gën a saaga sax gën a def lobby kooku la gars yi gën a mën a déglu ki leen di wax dëgg alors euh, mbirum vaccin bi nag euh, Thierno Lo lan moo si sa point de vue ndax coow na bëri te vaccin sax ñëwagul ñu ñi am na ñu commencé siisu ne vaccin bi duñ ko laal parce que daal dafa dañoo soupçonné que ni dafa am loolu na ñoo xam ne ñu naan doon vacciné ak ñoo xam ne nee nañ vaccin bi dañ ko daan indi bëgg a piqûre dañoo bëgg a rey mais gis nga euh, si conception boobu nga xam ne vraiment dafa grave c'est honte moom lañ war a bàyyi le Sénégal le Sénégal est un man dama fee gis ay professeurs yoo xam ne dama leen a naw lenn rek moo leen manqué par rapport au professeur du monde mooy ay plateaux médicaux mais gis nga ñoom li ñu man du ñu bàyyi mukk mukk mukk ab vaccin dugg Sénégal boo xam ne bi day rey nit ñi ubbeen da leen gaañ parce que dañ ko contrôler yow di nga man buy ñëw buy ñëw insha allah damay man man sama famille moom ñoom dañoo seen liberté ah, man du ma sama benn famille mun ma leen a conditionné man samay a mën a a vacciné wu yow yaa gis xale boo man a foog si forcé na ko man Thierno Lo may xool sama bakkan lay sàmm ak tam peut-être que am na ay ay ay ay ay ñoo maa leen jiite sama parti ou bien samay sympathisants peut-être que bu Thierno demee danaa leen mën a dalal seen xel pour que ñu dem mais man buy ñëw may vacciné wu waaw. alors débat bi nag euh, beneen bi mooy euh, euh, modification code général des collectivités territoriales ñu ne bu ñu si eggee nag ville yi dañ ko dañ ko fa tëb dañ leen fi war a jëlee en tant leader de parti lan moo si sa position. man débat boobu du ma sore kenn parce que man décentralisation gëwuma ko décentralisation bii ñu am depuis temps président Abdoulaye Wade ñuy toog di créer ay communauté rurale ba dem fekk man sama fa ma dëkk sama arrondissement ñu fekk ay dëkk yoo xam ne mënuñoo dajale cinquante mille francs par jour. mën ñu woon a nekk sax ay communes rurales ñu def leen ay communes rurales jekki jékki def leen ay communes kooku man buuma boobu décentralisation parce que toujours ci état bi lañ dépendre buñ leen joxul dotation mënuñu woon def dara fond de dotation buñ leen ko joxul duñ def dara donc man gëwuma boobu décentralisation bay nekk fii di def ay coow wiir ak ay coow département décentralisation da ngay couper cordon entre état central ak collectivité locale bi collectivité bi am ay ressources yu ko mën a permettre muy seet li askan wi bëgg mu di ko def bàyyee état bi nag ay mission de service public am bu ko defee moom mu ñëw jëm koo def mais fii commune commune ban commune mën ñoo jën sax benn benn tasseuse pour di jël mbalit bi nekk ci seen ay commune état bi moo leen di dimbali pour ñu jël affaire mbalit mi compétence yi mu décentralisé woon jox leen ko yëpp amul benn ci boo xam bi ñoom mën nañ ko assuré xanaa séddale suuf waaw loolu nag yorul yorul réew te découpage yi fi nekkoon yépp ay découpage politique la woon loolu nag lañ war a dindi def ay découpage yoo xam ni c'est pour rendre beaucoup plus efficace naka la ñuy gérer nekkinu askan loolu itam ci débat profond yi ñu war a indi la gis nga position partisane yi ñuy def man fii laa far fii laa far fii laa far moom moo empêché ñuy jël les meilleures choses pour l'intérêt des population te population yi ñoo war a ñi nga xam ne bile ñi ngi porter ces de changement de réarmement ñooñu lañ war a jàppale pour pousse pour que le véritable débat ñu ko di ko def sur les plateaux di ko def ci biir quartier yi ak di ko waxtaanee mooy position politique yi nañ ko bàyyi. parce que par parloo parce que man nekk naa rek président avec le président Macky Sall su ma dikkee ma daal di commencé di tergier di wax naan oui il faut découper il faut supprimer Dakar il faut supprimer Rufisque et des trucs te gëwuma loolu gëwuma ko le président Macky li fi nekk mais moom dafay jaar day gis nga découpage yi fi président Abdoulaye Wade defoon indi fi communauté rurale yu bari du dem na bàyyi ko fi moom mii bu ñu ko mu supprimer ville yeeg département yeeg affaire yooyu keneen day ñëw fekkaat ko fi bu kooku ñëwee aussi la ko neex mu kolkolal kolkolal jéem a dugal non il faut une véritable décentralisation te pour le moment nekk gun ci kon nañ ko teg ci digg bi génn ci mbiri politique jël experts yi fi nekk ñu waxtaan pour def la meilleure décentralisation pour que les communes qui vont yi ñuy def mën a jël en charge le problème des populations. voilà Thierno Lo euh, affaire Diary Sow bi am nga si yaakaar surtout dernier développement yi ñu dégg démb Jeune Afrique ne fugue la dafa fàq fi mu nekk moo fa nekkal. man daal xam naa ne. souvent Sow suñu doom la. Mhm. sénégalaise la. ci nekk da nga cee am fibre paternelle. boo xam bi ñun ñëpp dañu war a ñaan xale boobu génn fu mu mun di nekk ak lu ko fa dugal pour que mu mun a continuer njàngam pour que ñu mën a dalal xeli parents kooku lu ñu war a def la donc moom mënuma lu version yi nag bëri na ci bon fii nii nii ak itam ay déformation ak affaire nañ nañ prudent ca ñaan yàlla ca itam demande à l' du Sénégal mu gën a ànd avec l' état de la France ñu def tout ca itam ñaan daal pour que xale bi génn fi mu nekk pour mën a continuer sagal ay way juróom. voilà jërëjëf na Lo jërëjëf euh, président alliance pour la paix et le développement nga nekk aussi président coalition Adiana nekk euh, PCA seen Terre SA terre bi nga xam ni inauguré nañ ko depuis euh, deux ans ba léegi mënagul daw. <laughs> waaw booba plateau spécial lay lay la léegi bu mu ñëw teer bi amul plateau ma ciy defate yow mooy bu teer bi di ñëw ma invité la hmm. nga ñëw mu dugal la ci teer bi mu yóbbu la delloosi la yóbbu la AIBD nga toog gis nit ko fekk Pierre nañ xeex mbas mi rek ba mu jógee hmm. fi voilà c'est l'essentiel yàlla ñu ci yàlla dimbali ba mu jógee fi wala ñu ngi lay gërëm bu baax mbokk ñu doon euh, suivre euh, donc invité mi journée bi fii ci euh, Walf TV di leen jox rendez-vous suba ak jàmm jërë jëf thank you